alhamdulilahi rabbil aalamiin <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin nabiina muhammadin sayyidil awwaliina wal aaxiriin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin wa sallama tasliiman kasiiran ilaa yawmil qiyaamati yawmid diin amma baadu mbokk jullit ñi ñoo ngi sant suñu boroom subhaanahu wa taala di jullee ka salmal ci suñu yenent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di dénk suñu bopp di leen dénk ñu ragal borom bi subhaanahu wa taala ci def ay ndigalam waaye bàyyi ay tereem mbokk yi suñu borom tabaraka wa taala dafa bindee doomu aadama ci àdduna bi muy dund léeg-léeg doomu aadama bi nekk ci ay fan yi mbégte léeg-léeg mu nekk ci ay fani kontante waaye léeg-léeg yàlla ëlbati fan yooyu def ko ay fani tartar def ko ay fani metit def ko ay fani balaa def ko ay fani naqar fan yooyu mun na dem sax ba yegg ci ay weer mun na dem sax ba yegg ci ay at léegi léeg itam mu nekk ci ay xéwél nekk ci banneex nekk ci dund gu dal nekk ci dund gu teey dund goo xamante ni dafay tegaloo waaye nistuut rek suñu borom tabaraka wa taala waat ko mu nekkaat ci ay jafe-jafe nekkaat ci ay natt nekkaat ci ay nëx-nëx loolu nag mbokk yi mooy doxalinu yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf ci di wëlbati situation doomu aadama yi waaye itam di changer jamono bi moom yàlla subhanahu wa taala jamono bu nekk ak lam koy tombeel ci jullit bi loolu doxalinu yàlla la ci kaw suuf waaye ànd ak loolu jullit bi du dañ di nekk ci aw yiw ak lu jamono di tëre di tëre di soppeeku jullit bi moom du dañ di nekk ci aw yiw fekk xolam moo ngi aju ci boromam subhaanahu wa taala loolu tax dafa am jaamu yàlla gu màgg bokk ci jaamu yàlla yi gën a dëgër ci dox jokkale diggante jaam bi ak boroomam subhaanahu wa taala bokk ci mooy jaamu yàlla yi gën a dëgër yi jokkale xolu jaam bi ak boroomam subhaanahu wa taala waaye ànd loolu jamu yàlla googu ñu bari ci nit ñi dañ koo sàggane ànd ak dañ koo yittewoo yittewoo gu jéggi dayo jaamu yàlla googu mbokk yi mooy jaamu yàlla yi ñaan borom tabaraka wa taala nee ci alquran wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan falyastajibu lii walyuminu bi laallahum yarshudun borom bi nee na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la sama jaam ñi laajee anama nee leen ku leen jege laa dinaa wuyu woote ki ma woo dinaa wuyu nangu ñaanu ki ma ñaan kon fal yastajibu lii wuy ci leen ma man yàlla subhanahu wa taala ci def samay ndigal bàyyi samay tere wal yuminu bii laallahum yarshuduun ngeen gëmma ngiree ngeen mën a tegu ci yoonu siraat almustaqim jëlee nañ ci saxaaba bii di nucmaan bun bashir radiallahu anhu mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na adduaau huwa al ibaada yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan moom mooy jaamu yàlla subhaanahu wa ta'ala ñaan ci boppam moom mooy jaamu yàlla ndax kii ñaan saxal na ak ñàkkam moom doomu aadama bi sukk ci kanam boromam di ñaan ñaareel bi saxal na ne am na borom bu muy ñaan ñetteel bi saxal na ne ki muy ñaan moo ngi koy dégg moo ngi koy gis kon yooyu yëpp dafa dajee ci buntu ñaan moo tax jëmmi ñaan ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko al ibaada muy ak jaamu moo tax yàlla ne wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin yàlla mu ne seen borom nee na ñaan leen ma ma may leen buur bu tol ni borom bi subhaanahu wa taala ne woo leen ma ñaan leen na ma may leen inna alladina yastakbiruuna an ibadati ñii rëy rëylu ba duñ ma ñaan ma ñi man yàlla yàlla ne na ñooñu danaa leen dugal safara mbokki jullit ñi way sa su fekkente ni doomu aadama bi dafa lënkale ñaanam ak toroxlu borom bi tabaraka wa taala ak aajowoo ak lorgu jëm ci borom bi subhaanahu wa taala waaye tam wéeru ci moom yàlla sàkku ci moom ak ndimbal ñaan googu day yeyoona ci borom suñu borom tabaraka wa taala nangul ko ni yàlla wax ci alquran mu ne amman yujibu almutarra ida daaahu wa yakshifu suu wa yajcalakum wa yajcalukum xulafaa al ard a ilaahum maa allah qalilan ma tadakkaruun borom bi subhaanahu wa taala mu ne amman yujibu almutarra waaw jaam bi nga xamante ni dafa loru nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay problème nekk ci ay métit amman yujibu almutarra moom jaam boobu loru ana kan moo koy wuyu ida daahu bu ko wooyee kooku kenn la mooy yàlla subhanahu wa taala wa yakshifu suu te yàlla mooy ki nga xamante ni mooy dindi njàqare yi mooy dindi ñaawteef yi wa yajcalukum xulafa al ard yàlla def leen ngeen di ay kuutaay ci kaw suuf génération bu dem beneen génération ñëw a ilahum ma allah waaw yàlla moomu ndax dafa am beneen yàlla bu ànd moom ngeen koy tëkkaleeg moom qalilan ma tadakkaruun lu néew ngeen di fàttaliku mbokk yi ñaan koom la gu rëy te itam su fekkente ni kii ñaan làmmiñ bi ak xol bi dëppoo na mu dëggu loolu da ngay gis ne ñaan gu dëgër lay doon ñaan gu nangu lay doon bokk na ci liy tegtale lu ñaan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalatha imma an tu'ajjala lahu da'watahu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha qalu idhan nukthir qala Allahu akthar Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn jullit bu yëkkati ay loxoom di ñaan yàlla tabaraka wa taala te loolee muy ñaan bàkkaar nekku ci dog mbokk nekku ci nee na lu dul yàlla jox na ko benn ci ñett yii benn yàlla gaaw a nangu ñaanam la muy ñaan yàlla subhaanahu wa jox ko ko ci saasi walla benn yàlla nangu ñaan gi waaye joxu ko li muy ñaan da ko koo dencal ba ba yowmal xiyaam wala benn yàlla ñaan gi ci boppam nangu na ko waaye da ko koo fanqal musiba bu naroon a dal ci kawam waaw kon loolu moom moo tax jullit bu yëkkatee ay loxoom tàllal ko wàcce na gëm ne yàlla nangu nag ñaanam bu ñàkk a gis li mu ñaan rek mu jàpp ne yàlla nanguwul ñaanam déedéet waaw benn yàlla nangu na ko waaye daf la ko denceel ba àllaaxira wala yàlla nangu na ko waaye dafa am musiba bu naroon a dal ci sa kaw ci ñaan googu nga ñaan yàlla fanqalee la ko musiba bi wala yàlla jox la ko nga daal di gis lim la lim la may. bi saxaa bi bi waxee loolu saxaaba yi ne ko idan nukthir kon dee danañ bari lu ñuy ñaan yàlla yent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen allahu akthar yàlla leen gën a bari le seen ñaan lu muy bari bari bari bari la nekk fa yàlla du jukk mbokk yi ñaan moomu dafa am ay bërëb yoo xamante ni moom lañ koy nangoo am ay waxtu yoo xamante ni ay waxtu nangu ñaan la jaadu na ci ab jullit buy ñaan yàlla mu dàkk waxtu yooyee waaye itam dafa am ay fan yoo xamante ni fan yu am ngëneel la yoo xamante ni ku ci ñaan sag ñaan am nañ yaakaar ci ne dana nangu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko saxal bis yooyu bokk na ci lu mel ni bisub arafa bokk na ci lu mel ni bisub ajjuma bokk na ca lu mel ni fani weeru koor bokk na ca heure bi nga xamante ni moo mujj ci bisub ajjuma bi ma ana jant bi buy waaj a sox heure bi ci mujj bi ma maanaa trente minutes yi des jant bi so wala vingt minutes yi des jant bi so heure boobu heure bu nangu ñaan la loolu tax asalafu saalix bisub àjjuma bu ñu julliwaan tàkkusaan ba pare ñu bari dañ daan toog ca jàkka ja di ñaan yàlla di ñaan di ñaan ba jant bi daal di so heure boobu bokk na ci heure bu nangu ñaan bokk na ci heure bu nangu ñaan yi mooy diggante fi ñu noddee ak fi ñu liqaamee waaw diggante bi bi ñu noddee ba baa ñuy liqaamee di taxawal julli diggante boobu diggante nangu ñaan la waaye ma al asaf ñu bari dañ koy sàggane ñu bari dañuy dégg noddoo dañuy bàyyi ba ni taxawal ñuy soog a jug dem jàppi soog a ñëw julli ci te xamoo ne diggante bi ñu noddee ba baa taxawalee mën nga fee jàpp ñëw julli fi say rakkay naafile ñaan sa borom sa soxla soog a taxawal julli diggante boobu diggante nangu ñaan la kon diggante boobu jullit waru koo sàgganee bokk na ca itam jamono bi ñuy taxawal julli jamono bi ñuy liqaam di taxawal julli jamono boobu itam jamonoy nangu ñaan la bokk na ca jamono bi taw di wàcc jamono bi asamaan bi di taw foofu itam jamonoy nangu ñaan la waaye itam bokk na ca jamono bi nga xamante ni aji woor ji woor na bay dog kooram jamono boobu itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jamonoy nangu ñaan la bokk na ci jamonoy nangu ñaan mooy nit ki nekk ci tukki jullit bi bu nekkee ci tukki ba baa muy dellusee tukki boobu mu nekk lu mu fa ñaan suñu borom tabaraka wa taala daf ko koy nangul bokk na ci jamono yooyu mooy jamono bi nga sujjootee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru duaa mu ne jaam bi jamono bi mu gën a jegee yàlla tabaraka wa taala nee na mooy jamono bi mu sujjootee mu ne kon nag bu ngeen sujjootee dee leen bari lu ngeen di ñaan foofu loolu tax sujjuut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf fa daan ñaan ay ñaan yu gudd a gudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mustajabat la shakka fihinna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti ñaane ngi nii yàlla du ko delloo nee na loolu moom amul sik sàkk mu ne bi ci jiitu mooy daawatul mazlum ñaanu kuñu ñu tooñ koo xamante ni dañ ko tooñ mu yëkkati ay loxoom ne allahumma ñaan googu suñu borom tabaraka wa taala du ko delloo yonent bi nee na laysa baynaha wa bayna allahi kiiraay buy dox digganteem ak yàlla bu ne ma rek ñaan gi day dem direct ma dox suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko walaw ansur la ansurannaka wa izzati la ansurannaka walaw baada xiin yàlla mu ne maa ngi waat ci sama màgg ne yow mi ñu tooñ nga ñaan ma dinaa la dimbale ak lu mu yàgg-yàgg moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam keroog ba muy yónni Muaz ibnu Jabal ca Yaman daf ne ko ittaqi daawata al mazlum yaa ngi dem nag di jël seen azaka waaye soo demee moytul ñaanu ku ñu tooñ moytul ñaanu ku ñu tooñ ndax ku ñu tooñ bu yëkkatee ay loxoom ñaan yàlla borom bi tabaaraka wa taala du delloog ñaanam ñaanal du mu ne wa daawatul musaafir ñaanu kii tukki ki nga xamante ni dafay tukki jamono bi mu nekkee ci tukki ba baa muy dellusee lépp lu mu fa ñaan suñu borom da koy nangu ñetteel bi mu ne wa daawatul walidi ala waladihi mooy ñaanuk way jur ci doomam loolu moom moo tax léeg-léeg ñuy bàyyiloo xel way jur yi bu seen xol yi tàngee ci doom yi ñuy bañ a yëkkati kàddu yoo xamante ni day lor gone yi ndax léeg-léeg woy jur xoolam tàng mu ñaanal doom ji ñaan goo xamante nii day pare di ko rëccu jamono boobu bu tombeeg malaaka yi ne amin ñaan googu yàlla da koy nangu moo tax doom yu bari échec nañ li leen échegal mooy seen ak ñaaru seen ak ñaanu jur parce que ñaanu way jur ci doom borom bi subhanahu wa du ko delloo loolu tax way jur balaa ngay ñaan yàlla sa doom xoolal bu baax a baax a baax li ngay wax ñaan gi ngay ñaan noonu di ko rëbb ñaan googu bu dalee ci kawam rek dootul baax ci moom moo tax al imaam mujahid mu ne julli ci boppam yàlla tabaraka wa taala da koo def ci waxtu yi gën kon na ngeen góorgóorlu bu baax ci di ñaan ci ginnaaw julli yi loolu itam bokk na ci waxtu yi nga xamante ni waxtu ijaabatu duaa la mooy ginnaaw salaatul mafrudaat yi mooy ginnaaw julli farata yi jullit bi ñaan soxlaam waaw waaye nag melul ni comme niñ koy defee ñun nga xamante ni dañuy julli farata ba pare imaam ne nañu jàng nangam ak nangam di di ñaan mbooloo mi naan amin déedéet loolu saxul ci sunna li tax si sunna mooy bu ñu jullee farata ba pare kenn ku nekk ñaanal sa bopp kenn ku nekk fa nga toog boo defee say baqiyaatu saalihaat ba pare mën nga yëkkati say loxo ñaan say soxla waaye du doon duaa u jamaiya muy ñaan goo xamante ni imaam day joxe ay dog wala imaam di ñaan mbooloo mi naan amin loolee moom saxul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñaan moomu dafa am ay teggiin teggiin yoo xamante ni day jaadu ci jullit bi buy ñaan borom bi tabaraka wa mu làmbaayoo teggin yooyu bokk na ca teggin yooyu mooy nga ubbee ñaan gi ci tagg yàlla tabaraka wa taala nga ubbee ñaan gi ci sant borom bi subhanahu wa yaa xam nag xeetu tagg boo mën a taggee yàlla tabaraka wa taala yaa xam xeetu sant goo mën a santee borom bi tabaraka wa taala moom ngay ubbee ñaan gi ginnaaw gi nga julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci sabab yi tax yàlla nangu suñu mooy ñu jiital julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu taggee yàlla tabaraka wa taala kañ ko bàkk ko dañuy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nitu àdduna yi rek soo bëggee ci ñoom dara da nga leen di taggal seeni maam ñu làmb seeni poos jox la borom bi subhaanahu wa dafa bëgg ki koy ñaan mu di ko kañ moom yàlla di ko tagg di ko sant ci ay xéwalam soo paree julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel ba mooy nga jublu penku jamono bi ngay ñaan bokk na ci teggini ñaan mooy nga jublu fi nga xamante ni moom mooy penku bokk na ci teggini ñaan mooy suufeel sa kàddu waaw waaye di ñaan fu nit toll di la dégg loolu bokkul ci teggini ñaan dafa bokk ci ni ñaan suufeel sa kàddu gi ndax ki ngay waxal taxul ki ngay waxal soriwula mooy yàlla subhaanahu wa taala saxaaba yi ànd nañoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa di dox di tudd yàlla di yuuxu ci kaw yonent ne leen leen seen baat ki ngeen di woo taxul taku leen jege la kon kii ñaan kàddoom na suufe bokk na ca mooy nag tànn itam li ñuy tuddee jawaamiul kalim min addu'a mooy baat yoo xamante ni dafa gàtt ba pare ëmb lu bare bare bare bari loolu ko ko xool ci ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy gis day rab ay baat yu gàtt waaye ëmb maanaa yu dul jeex waaw bokk na ci itam jamono bi jullit bi di ñaan na toroxlu waaye itam na loru ci kanam boroomam subhaanahu wa taala na góorgóorlu bu baax waaye itam nay insister ci ñaan gi nay insister ci ñaan gi waaye bu ñaanee ba pare itam na rafet njortu ci na yàlla tabaraka wa taala dana nangu ñaanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na udu llaha wa antum muqinuuna bil ijaba waalamu anna allaha la yastajibu duaan min qalbin gaafilin laahin mu ne ñaan leen yàlla tabaraka wa taala te ngeen am kóolute ngeen am yaqiin ci ne yàlla dina leen nangul seen ak ñaan mu ne xam leen ne yàlla tabaraka wa taala du nangu ñaan goo xamante ni boroom ba muy ñaan xol bi dafa sàggan bi maanaam ba muy ñaan xol bi teewluwul moo ngi ñaan waaye xol baa ngi feneen xel maa ngi ci di xalaat leneen ñaan googu yàlla tabaraka wa taala du ko nangu kon kii ñaan xol bi ak làmmiñ bi làmmiñ bi li muy wax ci xol bi la war a jógee mu concentré wu ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala su ko defee rek suñu borom tabaraka wa taala dana ko mën a nangul li nga xamante ni moom mooy ñaanam mbokk noonee nga xamante ni dafa am ay mbir yuy tax ñuy nangu ñaan noonee itam la amee ay mbir yoo xamante ni day tere ñu nangu ñaanub jullit bi bokk na ca mbir yi gàllankoor suñuy ñaan mooy lekk lu xaraam di naan lu xaraam di sol lu xaram wax naa la léegi ne la dafa bokk ci sabab yi tax yàlla nangu ñaan mooy tukki yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nettali benn waay mu ne yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa'i ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu xaraamun wa malbasuhu wa mashrabuhu xaraamun wa malbasuhu xaraamun wa xudiya bilxaraam fa annaa yustajaabu lahu yenent bi nee na waa ji moo ngi guddal ay tukkeem bi maanaam moo ngi tukki pënd lool poussière lool mooy ne yamuddu yadayhi ila sama moo ngi tàllal ay loxoom ci kaw asamaan naan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi baa ngi lay ñaan yenent bi nee na te boo xoolee wa mat'amuhu xaraamun la muy lekk dafa xaraam wa mashrabuhu xaraamun la muy naan dafa xaraam wa malbasuhu xaraamun la muy sol ci boppam dafa xaraam nee na wa quziya bil xaraam te itam la muy dundee dafa xaram waaw kon moom li muy lekk dara daganu ci yonent bi mu ne fa anna yustajaabu lahu kooku naka la ko yàlla tabaraka wa taala di nangulee ak ñaanam loolu tax jullit bi war a xool bu baax a baax a baax a baax li ngay lekk di ko jox sa njaboot na doon lu lew li ngay sol na doon lu leew li ngay naan na doon lu leew asalafu saalix day seeni boroom kër bu ñu xëyaan di liggéey seeni soxna ñooy ñëw ba ci seen loxo jàpp ci loxo bi ne ko mun nañoo muñ xiif de waaye munuñoo muñ mbugalum yàlla tabaraka wa taala góorgóorlul bu baax ba lépp looy indi ci kër gi ñu di ko lekk na nekk lu dagan waaw nii la jigéen ñi daan yebee seen boroom kër yi waaye nag tey jigéen ñu bari ñooy pousser góor ñi ci wut loo xamante ni lu daganul la di ko indi ci kër yi ndax anam bi ñu leen di bundu ci biir kër yi kon kilifa gi war na góor góorgóorlu bu baax la muy dugal ci biir kër gi na nekk lu dagan ak pression bu ñu la mënti teg la ngay dugal di ko jox sa njaboot na nekk lu dagan ndax loolee day tax suñu borom tabaraka wa taala di nangu say ñaan bokk na ci liy tax yàlla du nangu sag ñaan mooy ñaan ba pare yàkkamti waaw ñaan ba pare yàkkamti bàyyi ñaan gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yustajaabu li ahadikum maa lam yacjal fa yaquulu qad daawtu fa lam yustajab lii nee na dina nangu ñaanu kenn ci yéen feeg yàkkamtiwul di wax naan man ñaan naa ba sonn yàlla ma li may ñaan waaw kon ñaan gi jarul yàkkamti dégg nga léegi yonent bi nee boo ñaanee benn ci ñett yi la yàlla di jox benn mu jox la ko léegi nga gis ko wala mu dencal la ko ba àllaaxira wala mu fanqalee la ko musiba gu naroon na dal ci sa kaw kon bul ñaan gisoo li nga ñaan nga yàkkamti ba tax nga baax ne man ñaan naa ba sonn yàlla nangulu ma loolu day tax suñu borom du nangu sag ñaan bokk na ci ñetteel ba yi tax borom bi du nangu ñaan yi mooy bàyyi digle lu baax ak tere lu bon ci xadiisu xudayfatu bnu lyamaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na wallahi la ta walladi nafsi bi yadi la taamurunna bilmaaruf wala tanhawna an ilmunkar aw la yushikanna allahu an yabcatha alaykum ciqaaban minhu thumma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum nee na di ngeen digle lu baax maa ngi waat ci ki sama bakkan nekk ci loxoom ne di ngeen digle lu baax tere lu bon su ngeen ko deful yàlla dina yónni ci yéen mbugal ngeen koy ñaante du leen nangul moom borom bi subhaanahu wa taala kon bàyyi tere lu baax bàyyi digle lu baax tere lu bon dafay bokk ci lii tax yàlla du nangu suñuy ñaan kon dafa bokk ci li yàlla taggee xeet yi mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yàlla nee na yéenay xeet wi gën ci xeet yi lu tax mooy taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar da ngeen di digle lu baax di tere lu bon waaw ñun société sénégalaise bi nag li ñu tàmm mooy nit buy def naka su dul noonu nga di ko jubbanti ñu naan la maandu si loolu du te waaw loolu du ak maandute nit bu nekkul ci njub dañ naan ko nekkoo ci njub ku teggi yoon wi dañ naan dangaa teggi yoon wi loolu mooy maandute waaye nekkoo ci njub nekk ci ndëngte ñu lay jubbanti nga naan maandu ci déedéet loolu du ak maandute kon digle lu baax tere lu bon dafa bokk ci li yàlla taggee xeet wi juróomeel ba ci liy tax borom bi du nangu suñuy ñaan mooy ñaan goo xamante ni nit ki ba mu koy ñaan bàkkaar lay ñaan wala muy ñaan loo xamante ni day dog mbokk waaw muy ñaan yàlla loo xamante ni day dog mbokk wala muy ñaan yàlla loo xamante ni bàkkaar la loole suñu borom subhanahu wa taala du ko nangu kon yii ay sabab la ay mbir la yoo xamante ni bokk na ci lii tax suñu borom subhanahu wa taala du nangu suñu ñaan di tëje benn mbir mbokk yi samedi bii ñu weesu dafa am benn jëf ju yéeme ju xew fële ca Kawlax mooy benn jullit bu faatu ñu suul ko ci armeel yi ay ndaw dem sulli ko ba pare daal di koy taal ñu ne parce que ab góor jigéen la loolu day wan société sénégalaise bi fi ñu tollu ci réeree diine day wan société sénégalaise bi fi ñu tollu ci ñàkk xam diine doomu aadama bi bàkkaaru bu ngóor jigéen laa sakka bàkkaar bu rëy rëy rëy la waaye bàkkaaru bokkaalee ko gën a bon bàkkaaru ngóor jigéen bàkkaar bu rëy la waaye bàkkaaru bokkaale ko gën a bon ndax bàkkaaru ngóor jigéen ki ko faatuwaale yàlla dana ko jéggal waaye ki faatuwaale bàkkaaru bokkaale nag moom kooku yàlla du ko jéggal abadan beneen bi ci mooy nit ki pour ñu xam ne kii góor jigéen la ci ñaari anam la man a amee anam bi ci jiitu mooy moom ci boppam mu intiraaf ko moom ci boppam mu ne moom ab góor jigéen la walla ñu fekk ko muy def jëfi góor jigéen te su boobaa charte yi lislaam teg ci njaaloo ku ko seede muy ñeenti nit ñu bokkul fu ñu jógee te wuñ ñoo koy gis muy def yëfi ngóor jigéen su boobaa loolu day saxal ne kii ab góor jigéen la mais ñaar yi benn tànk benn amu ci moo xam dañ ko gis muy solo solo ni jigéen wala muy wax waxi jigéen mënuñoo dogg ci ne góor jigéen la même bu demoon ba leer ne kii ab góor jigéen la su faatoo dañ koy defal li ñuy defal jullit ñi dañ koy sang dañ koy sang dañ koy jullee dañ koy suul ci armée li jullit parce que lu tax mooy góor jigéen gi bu fekkente ni ba ma koy dund ab jullit la su faatoo bakkaaru góor jigéen googu génnewu ko ci diine ji te képp ku faatu nag te faatuwaale woog bakkaar bu la génne ci diine ji dañ lay defal li ñuy defal jullit ñépp lislaam wax kay mooy imaam bu mag bi du la jiite ni nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa buñ ko indilaan néew dafay laajte ndax am na bor buñ nee ko waaw mu ne jullee leen ko saxaaba yi daal di koy jullee wala ñi nga xamante ni dañoo xaru woon ci jamonoom yenent bi julleewu leen waaye saxaaba yi jullee nañ leen parce que lu tax mooy imaam bu mag bi ci boppam ñàkk gi mu koy ñàkk jullee dafay jàjj ñeneen ñi ngir ñu bañ a tàbbi ci loolu kon ñooñu def nañ bàkkaar bu rëy rëy rëy ab yéeféer sax laa wax su faatoo amuñ droit di ko lakk waxatuma laa koo xamante ni nag la xam mooy ab jullit la da ci ab jullit la faatu kon bàkkaar boobu mu faatuwaaleel muy bàkkaarub ngóor jigéen watta tax ñu ne duñ ko jullee watta tax ñu suul ko ci ay armeel ba pare ay nit ñëw sulli ko daal di koy lakk loolu réeree diine la nit ñaa ngi fi di def bàkkaar yoo xamante ni da génne ci diine te bu ñu faatoo ñu leen di suul ci armeelu jullit ci ñaata nit a fi taxaw ci senegal bañ a julli te loolu moo gën a danger foofu ñàkk julli moom weddi yàlla la subhanahu wa ta'ala waaw ñaata nit a fii taxaw di bokkaale ak yàlla subhaanahu wa taala di jël cër yàlla di ko jox ay nit te bu ñu faatoo ñu sang leen jullee leen suul leen ci armeel jullit ñi te ñooñu dañoo génn lislaam ndax bàkkaaru bokkaale bu mag ku ko faatuwaale génn nga lislaam te suñu borom tabaaraka wa taala du la jéggal kon société sénégalais bi dañoo réeree diine diine ci boppam dañ ko war a jàng dañoo war a jàng diine xam ko jëfe ko diine du lu ñuy donn diine du lu ñuy roy diine lu jàng xam jëfee ko kenn lañu yàlla royloo mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam keneen ku moom ci diine ji dañuy xool na nga tegee sa tànk fa ko yonent bi tegoon ñu topp la ca waaye boo tegul sa tànk fa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon kenn du la topp ndax yàlla toppaloo ñu toppaloowuñu la yonent bi la ñu toppaloo moom la joxuñ ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee da ngeen jub wa man yuti illaha wa fa faqad faada fawzan azima yàlla ne ne ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp yàlla kooku jub na kon loolu ak njuumte la loolu ak ñàkk dégg diina la ña ko def war nañoo jéggalu seen boroom subhaanahu wa taala tuub ko te xam ne loolee ñu def bàkkaar gënu koo doon bàkkaar lakk jëmmi doomu aadama loolu martaba yàlla la subhaanahu wa taala kenn amul sañ-sañu lakk doomu aadama ku dul boroom bi subhaanahu wa taala soo ko defee rek yaa ngi yor jéem a taxaw martabay boroom bi subhaanahu wa taala allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad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 وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم كف اللهم كف بأس الذين ظلموا عن المسلمين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ برحمتك أن يختالوا من تحتهم اللهم آمنا في أوطاننا وأدم, وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين واصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء واكفنا وإياهم سائر الأهواء والأدواء اللهم إنا نستودعك جنودنا يا من لا تديع ودائعه اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا اللهم شدد رميهم واربط على قلوبهم وانصرهم نصرا من عندك اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تنام يا قوي يا عزيز إن الله يحمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يذبكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول ما تسمعون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله